mom en même temps nekk na euh, membre ci parti bi di alliance pour la république mom moy APR donc euh, ñu koy am euh, mbégte dalal ko fi suñu kër diko ko nuyu monsieur Lo ñu lay nuyu bu baax. waaw ah, ngi lay fay di nuyu ak di siyaare téléspectateurs yi ak ni nga ko waxee internet yi nga xamné ne ngi suivre seen télévision bi xam ne mooy Yegle TV. di ñaan yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke xaadimu rasul yàlla barkeel li ngeen di liggéey kon maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. monsieur Lo bon li ñuy débuté rek moom mooy comme li ma ko waxee présentation bi ci parlement CEDEAO bi est ce que mën nga ñu defaral tey li nga xamante ne moom mooy bilan tey sa action ci wàllu CEDEAO.

jóge fi dem Niger jóge fi dem ñëw Nigeria doga ñew fi senegal Sénégal euh, Yalla defit nag eh, juróom benn parlementaire yi fi ci nekk ñu citel ma ci en tant que chef de délégation bi ñu demee ñu fal ma à l'unanimité président parlement bi depuis le 4 février 2016 euh, tay ñaari at def naa ko yu tek ay weer ci mandat ñenti at may centre euh, président de la république Macky Sall mi ma

kon li ñu sasoon parlement bi xam chef d'état yi ñoo ko def pour mettre ko en place mooy ñu accélérer processus d'intégration bi intégration bi sumboon nañ ko bu yàgg depuis 1975 mais ni mu doon doxee yeex na mu am gàllankoor yu bëree bëree bëri ñu ne bu ñu tëjee parlement bi ci vision 2020 dana mën a taxaw taxawaayu askan wi ndax bu njëkk bi ñuy taxawal CEDEAO dafa mel ni chef d'état yi

mënatuñ ko def rek ko conseil des ministres ñu validé ko dañu koy comme ñu def fii ñu xool budget bi xool budget, recettes yi dépenses mën nañ ne nañ yokk nous def nañ ko ci budget bi passé ba am na ne prévoir ñu ko woon ci budget bi ñun ñoo ko ndax dañoo jàpp ne am na luy dal ci kaw askan fait. question immigration yi lu question réfugié ñu tibbaat leneen ne nañu ko dolli ndax dañ ciy def ay mission duñ ko yóbboo conseil des ministres ñu ko proposé amendement bi noonu lañ ko nangoo loolu daal ci gàttal fi lañ toll benn problème am na Sierra Leone ñëpp gis nañ ko ci réseaux sociaux yi assemblée nationale bi ñu taxawal ñu nekk tey opposition ñooy majoritaire ñi nga xam ne ñi ñoo jël pouvoir bi ci élection présidentielle ñooy minoritaire mais duñ demee bu war koo taxawal dañoo def coup de force pour fab ku bokk ci minorité bi pour mu nekk président assemblée nationale bi mu amee ay soldats ak i policiers yépp lañ dugal ci biir salle bi génnee opposition ba fa nekk te majoritaire bi ma ko yëgee yónnee naa délégation bu am solo boo xam ne dem nañu ña nga fa dafa naan tey lañ fa war a jóge mais jot naa photo yi jox naa leen ko ak résultat yi mooy ñun liggéey nañu fa ba député yooyu dellu nañu nangu nañu ñoom ñëpp ñu def ndax dañoo defoon benn loi boo xam ni seen cour constitutionnel moo ko def ni député fukki député ak juróom-benn yi du ñu siégé te ñu ko ci fenn kon Sénégal ñu sawar ci sant ndax li loolu ku ko defoon Sénégal addina tukki te def nañ ko cim réew ab Sénégalais jël xalaat ak initiative ba régler problème boobu Nations Unies yëg ko yaakaar naa ne danañ ma ci jox benn diplôme mais da ngay xam ne bi ma liggéey bi ak léegi yàggul Mais come Montana, le forum de MAC. a nous cette leadership en matière d'intégration, en matière de coopération sud-sud. j'ai vu de ko décerner dans les bokk qui Afrique fait ci adduna bi yi ci le a ci prix il y a deux mois barki il n'a quoi de l'aide union nationale des commerçants et industries du Sénégal je vous félicité ñu jox ma d'or pour panafricanisme Je vais vous dama koy doxal. ma wax la benn affaire forum de Dakar bi. parlement bi. Mhm. parlement bi amul de autofinancement plus de 300 millions Je la vous financé un dalal peu ci hôtel yi. Mhm. loolu jaaxalu la un oto jox te bi ko waxee dañ ni mais président li nga bëgg a def fooy jëlee xaalis bi ma ni leen nañ d' accord rek bu ñu d' accordee danaa jëli hôtel danaa wuti salle président Macky Sall au passage maa ngi ko ciy sant jëlal na ma ay salle Racine si maa ngi koy sant maa ngi sant Ablaye kii Kosek euh, boy bi fa nekk John am na néeg yoo xam ne ñoo ko fay sur la demande loolu la maa ngi sant le port am na lu ñu fay parce que loolu liñ doon woote. du woon màggalu Moustapha Cissé dañoo nekkoon ci problématique wu migration sunu doom yi de ñu woo àddina bépp ñu war cee waxtaan mhm. xam nga CEDEAO xaalis biñ koy financé prélèvement communautaire ci droit de douane lañ koy jëlee kuy jël ci loolu nag di jox CEDEAO bu CEDEAO amee activité amul xaalis état bi mu ne ak yenn partenaires yi am na benn banque boo xam ne bii bu CEDEAO jàppale na maa am koy sant ci bi ñuy financé ndax xam nañ ne li may woote du sama njariñ ñu financé lépp mu mat loolu mooy entreprendre. mais après yow boo joxee boo joxee xëy na li ngay li ngay recevoir mooy ëpp li nga joxe. loolu xam nga loolu tam day ak. ñun forum boobu moo tax man ñu décoré ma loolu ma dox moo tax ce Grand Montana bi ñu amee résultat yooyu ñu ni def lii war nañ ko décoré. Mm-hmm. dinaa quoi. biñ may décorer loolu la ñu wax ndax kii li muy def askan wee tax panafricaniste la dafa bëgg nit ñi jabante saa ñu am coono te loolu ñëpp dañ ci war a wax. kon bilan résumé bi may sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ma ci jàppale. parce que ab commerçant jaaykatu gerte ak ñebbe buy jiite ay ingénieur ay docteur ay agrégé yàlla moo ko may taw feex taw feex boobu nag yàlla na wala ngaan ci Afrique ak ci Sénégal ci barke Xaadimu Rasuul